jëriñ authentique kenn du Serigne Saliou Mbacké jëriñ authentique la ilaha illallah barke Serigne Saliou oh, Mbacké ku mën na def dama ne la barke Serigne Touba nopp mësu koo dégg saa bàyyi nga ne jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba barke Serigne Touba la ilaha illallah ñu oh, ngay wër jumaa ja laa ilaaha illallaah yaa ngi nekk biir Touba yegg nañ jumaa ja <laughs> buntu kër Serigne Saliou lañuy taxaw ñetti buntu kër doomu jaxay nga Touba ñetti buntu doomu kër Serigne Touba Serigne Abdou Khadir Serigne Mourtala Serigne Saliou dama ne ñu doon laajte jumaa ji jumaa jàngook laa ilaaha illallaah l'édifice éternel oh. la grande mosquée de Touba oh, oh. laa ilaaha illallaah xool leen ci ginnaaw mu ngi ñëw sama kanam nag laay gis sama ginnaaw nag laay gis. oh. sama kanam nag laay gis sama ginnaaw nag laay gis nag yaa ngi ñëw. gis ngeen nag yaa ngi ñëw. oh. oh. laa ilaaha illallaah xoolal lii. maa la ko wax gëléem yaa nga nële. gëléem yaa nga jiitu nag yaa nga ca gannaaw. foo toll yaa ngi seen nag ak i gëléem. jërëjëf jërëjëf Sëriñ Saliou Mbacké Saliou Xaadim Rasuul jërëjëf borom xay borom borom lagan xarga Serigne Touba borom fukki daara yeeg juróom la ilaha illallah la ilaha illallah lii seere la lii seere la lii seere la barke Serigne Touba ngi ci kanam nag yaa ngi ci kanam ñoo ngi ci ginnaaw barke Serigne Touba nag yaa ngoog ma ne njëkk a bàq ku ca daan barke Serigne Touba barke Serigne Touba wàcc ma daan naa la wóoru ku daan da ngay féete kaw bismillah jàmm waaw dama ne la dama yéene ba jàmm nag kon ne ku nodd yaay jiite barke Serigne Touba ñëpp di jàkka waaye Bilal daa am imaamam borom digale imaam barke Serigne Touba borom digale imaam barke Serigne Touba nangoo ko bañ borom digale imaam barke Serigne Touba laa ilaha illallah laa ilaha illallah jërëjëfati sa Thank you. nga benn combat benn combat. nag yaa ngi ñuy doublé nag yaa ngi ñuy doublé. kon noo xaar nag yaa ngi ñuy doublé tubaab nag yaa ngi ñuy doublé. la la la oh oh la la la oh oh. xool leen image yi waay waay regardez. waay xool leen bii laa wax. laa ilaha barke Serigne Touba ma téléphone bi ma jëlee nii nag jël li ma ci ban rek laay def bi leen yàgg ci kanam nag ñu ngi Touba ñu ngi dem ci diggante jumaa ji ak kay gi laa ilaha illallah xal leen nag yi xal leen gëlëm yi laa ilaha illallah jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké xal leen nag yi ak abaani jenni laa ilaha illallah ñu ngi leen nag yi xal leen gëlëm day jëfati sama gars yi. mais moo di. ñu ñëw rek da ngeen di mos da ngeen di mos rek. laay laay laay da ngeen di mos rek may rek. Serigne Touba. waaw na ngeen moo nekk suñu ginnaaw jeexagul. waaw saa jaagul. waaw non non. waaye dama ne waaye non non waaye sa waay. waaye dama ne ko si la. lii. waaye rongoñ ah, naa lii lii lii yéeme na li ini jot a jooy fee ngeen naa doy la sa ku jooy ak ini ko mënu ko jooy daa bëri wala ndax daa ngi tuba ko ay jooy moom yaa ngi doon doon Fantas kena lu ko dal len len Oh,